mi ngi doon di dem bu koy téye xoolal waa ji mi ngi préparé ils sont en train d'armer ñu ngi armé xeeru bopp door na door na door na dooraat na xalifa mi ngi naan la bi oh door Khalifa dugg na si otom dugal na ko si otom dugg na si otom dugg na si otom dugg na si otom mbàccum gerte ba commencé na fii commencé na commencé na jàmmarloo waa kër Khalifa Sall jàmmarloo ñu ngi door ñu ngi door dañuy téléphone bi daa daanu Khalifa Sall mi ngi noonu dem na mi ngi noonu dem na ñu ngi jaamaarloo ñu ngi jaamaarloo ñu ngi jaamaarloo ñu ngi si permanence Khalifa Sall bi Khalifa dafa génnoon pour dem gars yi door ko la Masaya? Devam gibi. Hangi gibi? Bak gel gel gel. Böyle. Gay. Boy. Gay mı çıkıyor? Hamza Sengir. Hamza Sengir. Falla. waaw demal jéggi rek nga doon kenn nekkul. mais bàyyi bés kanam. ngir fa tàng. alors donc gis ngeen ñi ñoo ngi fi nga xamante ni fariwul ah, fi nga xamante mooy rond point JVC donc ñi di manifestant yi ñoo fi ah, taal léegi ay puna mi ngi nii gis ngeen leen donc ñu ngi ne di avancé di dem ni ñu koy defee saa su ne dañuy formé wu de petit bloc la ñuy dugg ci koñ yi taal laata force de l'ordre yi ñëw ñu daal di ñu daal di daw dem donc gis ngeen ko nii donc ni ñu ko defee liberté 6 defee ko liberté 5 defee ko euh, JVC ak feneen ak feneen donc noonu lañ ko defee fi nga xamante ne nii moom mooy euh, soriwul nag ci rond point yi ci euh, moom mooy rond point JVC ah soriwul ko donc comme vous le voyez déjà ñu gis ngeen donc les manifestants ñoom ñoo taan fii donc ay ni ñu ko defee saa su nekk ah, ni ñu koy defee hmm? donc ñëga na la yaa ngi leen di seen nële donc yaa ngi leen di yaa ngi leen di seen nële hmm? voilà ñoom ñoo ñoom ñoo taxaw noonu donc fii la gis fi nga xamante ne nii jë soriwul ci rond point JVC bi donc boo demee ba ci kanam ni rek yaa ngi gis foofu mooy rond point JVC bi donc les manifestants sont là gis ngeen na voilà mi ngi noona mu mel ni Dakar ah Dakar fépp daanaka bu ñu ko mënee wax noonu ah euh, mi ngi mi ngi mi ngi jax donc on avance un peu donc voilà donc gis ngeen aussi de l'autre côté gis ngeen leen ne le donc ñoo ñoo ñooy taal fële aussi tamit yaa leen di seen noonu donc l'autre côté aussi ay leen gis noonu alors gis ngeen donc de l'autre côté noonu yéegi leen di seen noonu voilà def nañu aussi tamit beneen beneen taal na le euh, ci kanam donc gis la fumée ni muy remonté ci kaw donc ci garab bi hmm. donc gis ngeen noonu la fumée ah ni muy remonté woon noonu ci ci kaw donc euh, mi ngi noonu ah donc euh, Dakar daal mun nañu wax ni actuellement euh, s'est transformé en feu donc si on peut si on peut dire cela ndax foo romb rek ci rond point Dakar yi ci recoin yi donc dañ koy taal ay pneus de petits blocs la ñuy formé wu ñoom les manifestants def la ñuy def laata force de l'ordre di ñëw pour mën a fay mbir li ñu mel donc mu mel ni force ñooy ñëw noonu donc dégg leen gaz dégg nga leen ñu dóore noonu lacrymogène yi donc yaa ngi dégg noonu donc tànn nañu force de l'ordre nañu nañu lacrymogène donc les forces de l'ordre tànn nañu lacrymogène donc mi ngi noonu dispersé nañ leen donc dispersé nañ leen les forces de l'ordre donc voilà donc force de l'ordre yi ñooy ñëw na le donc les forces de l'ordre ñoom ñooy ñoom ñooy ñëw na le ah, ñoom ñooy ñoom ñooy bon on part on part